docteur Abdourahmane Diallo ñu ngi lay nuyu di la dalal. ñoo ngi lay fay madame Elisabeth Diatta di leen euh, ñaan ngeen may ñu ñu ñu képp koo xamante ne auditeur rajo Rewmi FM FM la. mais mhm. aussi auditrice rajo Rewmi FM. Mhm. rawatina ña nga xamante ne mooy suñu mbokk yay yeewoo fee ci département de Foundiougne ak commune bu Karang. Et justement ngay enseignant chercheur ca université Cheikh Anta Diop de Dakar département langue ak civilisation slave tey ñu waxtaanee li xew ca Russie ak Ukraine euh, ñu bëggoon a xam euh, coow li nga xam ne ñu ngi koy dégg tey ndax lu yàgg la fan la euh, jóge. waaw coow lii de bu fekkee dañu sukkandiku ci histoire contextualiser yëf yi analyser ko dañu gis ne problème bi bi mu tàmbalee du tey. Hmm. naam euh, nit yi événement yi ñuy dund tey la gis waaye li wër ba leer euh, il faut que ñu fàttali ne Ukraine dafa bokkoon ci benn entité bu ñuy tuddee URSS. ci entité boobu Russie ca la bokkoon donc ñu gis ne entité boobu 1991 bi mu jotee dafa tas li entité bi tasee nag li xew mooy dañu créer benn kuréel bu ñuy tuddee la communauté des états indépendant muy CEI mhm. ci CEI boobu noonu nag Ukraine bokk mais ci biir histoire Ukraine dafa nekkoon la deuxième puissance pratiquement au sein de l'URSS mhm. léegi nag ñu gis ne Ukraine boobu noonu am na ci ay Euh, région yoo xam ne dafa dañu bokk ci moom mais boo xoolee historiquement région yooyu lu mel ni Crimée mhm. Crimée ci Russie la bokkoon mhm. mais 1954 si lañ rattaché Crimée fee nga xamante ne moom moo nekk sur la décision de Khrouchtchev naturellement si mhm. euh, lañ ko rattaché ci réew mi nga xamante ne mooy Ukraine léegi nag li xew mooy ci diggante bi gis nañ ne euh, benneen république bu ñuy tuddee Donetsk ak Lugansk mhm. ñu ngi bokk ci benn territoire bu ñu tuddee le Donbass mhm. euh, ñoom it dañu laajte seen indépendance ñu jël seen indépendance seen indépendance boobu bi ñu ko jëlee nag ku mel ni Vladimir Poutine daf leen nangul ne war nañ mën jël seen indépendance mais bu ñu xoolee ci benn fànn dañu gis ne lii di États-Unis d'Amérique euh, lii di Union européenne ñoom ànduñ ci loolu noonu nga xamante ne le président russe accepté na ko ñaari république yu bees yooyu noonu mm-hmm. eh, loolu noonu nag mu ngi na a jur eh, jafe-jafe yu metti ci zone boobu noonu rawatina ci population ukrainienne bi mm-hmm. donc loolu nekk na loo xam ne mën nañ ko retenir mais aussi ñuy fàttali nit ñi ne rek au lendemain de la deuxième guerre mondiale muy à partir de 1945. xam nañ ne dañu dugg ci benn nouvelle phase boo xam ne ñaari réew ñoom ñoo dominé woon les relations internationales mhm. ci benn fànn mu États-Unis si beneen fànn mu nekk Russie mhm. gis ne nag ñaari réew yooyu bi ñu demee ba atum 1991 réew mu mel ni Russie moom dafa ñàkkati doole parce que kuréel ba mu bokkoon muy RSS dafa kuréel boobu ba mu tajee nag la ca des moom mooy États-Unis mu continuer di dominer les relation internationales mhm. donc bi ñu demee ba ci ay années 2000 bi Vladimir Poutine accédé au pouvoir mu nekkoon euh, chef bo chef d'état boo xam ne comme ni ko spécialiste di waxee c'était un chef d'état fort à la tête d'un pays faible mm-hmm. donc moom nag doon na naqarlu lool li nga xamante ne dal na ko ci histoire Russie parce que moom mosuta bëgg li nga xam ne mu RSS mu daanu mm-hmm. loolu noonu nag bi amee moom bi mu falo la mu bëggoon c'est de faire revenir la puissance russe maanaam fexe ba Russie delluwaat ci taxawaay ba mu amoon démb doon ngan bu puissance comme États-Unis mhm. loolu loolu liggéey na ci ba tey bu ñu xoolee ba ci biir dañuy gis ga ne Russie delluwaat na fa mu nekkoon wala boog jege na ko. Mhm. ci biir loolu loolu Russie ba nga xamante ne kenn dëggatul ko woon tey fi mu toll nii moom la ñuy waxtaanee mais problème bi am fee ci Ukraine Crimée war a del dellu na déjà ca la nga xamante ne moom mooy euh, Russie mm-hmm. la nga xamante ne mooy ñaari république yu bees yooyu noonu tamit dellu fa mais ñuy yëgal askan bi ñu xam ne foofu ca Ukraine côté ba problème bi nekk li ëpp juróom-benn fukki nit ci téeméer yoo jël juróom-benn fukki yu nekk daanaka ñoom ay russe lañ mm-hmm. léegi ña nga xamante ne ñoom ñoo jóge ca réew mi Russie ma téeméer boo jël fukk ak juróom-ñaari ñu ngi joge fa nga xamante ne ce sont des d'origine russe loolu noonu nag bokk na ci loo xamante ne dafa compliquer un peu conflit bi parce que quelque part dans la tête de Vladimir Poutine dafa am ay population russe ya fa ne mhm. nekk ci côté boo xamante ne ñoom ñoom ñoo autoproclamé wu ne dañu am seeni république bopp mhm. donc li xew mooy moom mënu leen seetaan donc il a décidé euh, dafa décidé accompagner ñooñu mhm. loolu noonu nag de l'autre côté muy ci côté Union européenne ak États-Unis loolu nekkul loo xamante ne lu war a nekk la ñoom dañ gis ne c'est une violation du droit international. waaw tey comme ni nga ko waxee am na yi nga xam ne bokk nañ ko am yi nga xam ne jaxasoo nañ ci euh, comme ni nga ko waxee tamit ci yenn diwaan yi euh, tey ndax dafa mel ni euh, dañuy waajal wala sax ci boo mayul Euh, ci njeexal euh, diplomatie seen diggante Ukraine ak Russie lañ jëm. waaw diggante Russie ak euh, Ukraine pour le moment mën nañ ne ci conflit la ñu nekk diplomatie mënatu fa am parce que fi mu toll nii dialogue de sourds la de part et d'autre lu mel ni Vladimir Poutine moom logique bi mu nekk ci la bëgg continuer. Mm. lu mel ni États-Unis ak Union européenne ci logique ba ñu nekk ci lañ bëgg a continuer mhm. pendant ce temps population ukrainienne ñoom ñu ngi souffrir parce que comme ni ñu koy waxee rek euh, quand deux éléphants se battent c'est l'herbe qui en pâtit mhm. aujourd'hui c'est plusieurs éléphants qui se battent c'est l'Union européenne les États-Unis contre euh, la Russie ou bien la Russie contre l'Union européenne et les États-Unis avec euh, comme pour objet le cas ukrainien léegi nag ci biir loolu noonu nag dañuy gis ne dialogue mënut am te dialogue bu amul diplomatie du dox kon pour le moment mën nañ ne ñu ngi ci situation de conflit wax naa ko sànq ku mel ni ci dafa ne en temps de guerre la vérité est tellement précieuse qu'elle est entourée de mensonges de part et d'autre nit yi ñu ngi seetaan mais ñi ñu ngi naan Poutine moom moo nekk ci dëgg ñee ñu ngi naan Union européenne ak États-Unis ñoo nekk ci dëgg. Mm-hmm. mais ak lu mu ci mën a doon lu nekk mooy Ukraine war nañ fexe véritablement ba population ukrainienne bi ñoom ñu dellu si si jàmm retrouver la nga xamante ne moom la ñu soxla si seen réew. ndax yow jàpp nga ne euh, taxawaayu États-Unis maanaam ak Union européenne warul ci mbir mi. bon euh, man euh, je suis très mal placé du man maanaan seen taxawaay. non sa lecture en que spécialiste. bon euh, en tout cas je sais que ce sont des questions internationales il y a un conflit ci biir question internationale yooyu naturellement États-Unis ak Union européenne ñoom ñu ngi woote au respect du droit international. maanaam dañu war a respecter droit bi nga xam ne moo tënk ñëpp. Mhm. waaye boo dégloo Vladimir Poutine moom aussi mu wax ne Lénine nee maanaam population bu nekk peuple bu nekk war na mën a autodéterminer wu moom boppam loolu noonu nag dañuy gis ne ñaari conception yu wuute la ñaari position yu wuute mhm. ñee ñoom ñu ngi naan euh, Poutine dafa violer euh, le droit international di mhm. inviter communauté international pour di mobiliser contre ce qui se passe en Ukraine mhm. mais Poutine moom it dafa sukkandiku ne maanaam population bu Donetsk bu république populaire bu Donetsk ak république populaire bu Lugansk ñoom am nañ sañ-sañ moom la nga xam a euh, décidé ci dañuy moom seen bopp wala dañuy dellu ci Ukraine mhm. loolu noonu nag mu nekk deux positions yoo xamante ne opposées mhm. loolu noonu nag en tant que spécialiste la ma ci mën a wax pour le moment mhm. euh, nekkul loo xam ne génn ci Ukraine nekkul loo xam ne génn ci relation euh, entre l'est et l'ouest mais lu wóor ba leer war nañ mën a trouver solution na mu gën a gaawe Mm-hmm. pour euh, njëriñu Ukraine mais également pour njëriñu ces différents pays là parce que y a enjeux yoo xam ne war nañ ko mën a tey yaa ngi gis mise en garde yi États-Unis moo ngi menacé Poutine ŋànk fi mu jàpp moom euh, tey njeexital bu conflit bi demoon ba jéggi dayoo conséquences yi ci Europe ak ci Afrique. moom bu jéggee li ñu war a njëkk wax mooy Europe bokk na ca ñu koy njëkk a yëg parce que wax naa ko sànq boo xoolee Europe lu ëpp cinquante pour cent téeméer boo jël ci gaz bi muy utiliser. Mm-hmm. Euh, lu ëpp euh, juróom fukk yi Russie la koy jëlee. Mhm. Euh, Ukraine ci boppam téeméer boo jël pratiquement de l'ordre de cinquante cinquante cinq jëm cinquante huit pour cent. Mhm. lu ëpp euh, téeméer boo jël lu ëpp juróom fukk moom tamit mu ngi ci gazu Russie. Mhm. donc loolu noonu tey manque à gagner lay doon te tey loolu noonu bu ñu demee ba conflit bi mu continuer population ba nga xamante ne mooy dépendre ci gaz boobu noonu. industrie ya nga xam ne ñooy dépendre ci gaz boobu noonu industrie yooyu noonu dinañ jànkoonteel ay jafe-jafe te loolu dafay indi crise mm-hmm. crise boobu noonu muy indi nag dina impacter naturellement ci économie union européenne te bu impacter ci économie union européenne union européenne nekkoon di dimbale yenn pays ci Afrique wala ci Asie mm-hmm. dootul am benn doole bi pour man ko def donc indirectement pour ne pas dire par ricochet dina impacter ci la nga xamante ne mooy Afrique mm-hmm. mais conflit ukrainien bi tamit bu ñu ko jàngatee tuuti ca na ko yenn gëstukat ku mel ni Mackindo waxee eh, dafa am loo xamante ne ni eh, l'administration américaine depuis nguuru Truman eh, daf ko bàyyi xel que Russie d'après théorie bi Mackindo joxe woon daf ne woon réew mi nga xamante ne moo nekk au cœur du monde muy le heartland moom ci ay jàngatam Russie la ko jox am na beneen spécialiste américain boo xamante ne d'origine polonaise mooy Zbigniew Brzezinski mm-hmm. moom bokk na ci ñoo xam ne dañu théoriser il faut que ñu contenir la nga xamante ne mooy avancée Russie mm-hmm. ñu théoriser la la nga xamante ne mooy euh, le le roll back le le roll back boobu noonu muy maanaam euh, cette politique de repoussement repousser la nga xamante ne moom mooy avancée ennemi bi ñu gis ne tey ñoo ko théoriser mais ku mel ni Poutine mu ko appliquer parce que Poutine il est passé aux actes au-delà des paroles il est passé loolu noonu tey la koy jural mooy OTAN ba nga xamante ne bëggul mu jege frontière Russie. OTAN mhm. boobu noonu tey bu ñu reconnaître la communauté internationale bu reconnaître ñaari république yu bees yooyu noonu plus Crimée euh, euh, la ko euh, Russie dana gën a sori OTAN OTAN dina gën a sori Russie su ko defee dafay mel ni maanaam Ukraine bi nga xamante ne moo nekkoon état tampon entre la Russie et l'Union européenne. Mhm. dina am maanaam des pays yoo xamante ne day sëq ak ñoom frontière maanaam dañu am frontière ak Russie donc dëkkin bi dina gën a métti fu mu jëm nag ci njeexintal parce que tamit am na ki ñu naan Solzhenitsyn en 1990. Mhm. waxoon na lu mel noonu sànq euh, dama ko xaw a mhm. ne woon na ne conflit ukrainien bi li koy jeexal moom ci taxawaayam mooy région bu nekk war nañ ko mën a déglu mu xool moom dafay des ci Ukraine wala dafay dem ci Russie kooku noonu Solzhenitsyn moomu ñenn ci ay maamam Ukraine boobu la ñu soxee ko. parce que moom dafa jàpp ne le conflit ukrainien nekkul conflit boo xam ne dafay jeex conflit la rek boo xamante ne mën na sedd ñu teg ko mais conflit la boo xam ne day continuer leneen la mu fàtte wax mooy Kiev capitale Ukraine. Mhm. ñuy fàttali ñi ñuy déglu. que Kiev moo nekkoon ville bi gën a mag ci jamono Russie. Mhm. donc tey mu ngi mel ni dakaar bu ñu ne eh, Dakar mu nekk euh, suñu capitale tey ñu dem ba ñuy ñàkkoon yàlla tey ñàkk Dakar. Mhm. donc Kiev maanaam noonu la mel ak Russie c'est la maire des villes russes. donc euh, boo xoolee Russie si jamono sax Kiev si kaaya russe lañ ko doon woowee. Mhm. donc Russie bu Kiev ñu dem nag ba réew euh, capital boobu nekkatul ci Russie mu mhm. nekk loo xamante ne neexu leen mënuñ ci dara parce que tey Ukraine dafa jël indépendance am depuis 1991 bi mu jëlee indépendance am tamit dafa war a dox doxal comme état bu indépendant. loolu noonu nag maanaam la boo xoolee lii di Union européenne lii di États-Unis la ñuy ragal mooy Russie tem nanguwaat Kiev boobu noonu moom moo tax ñuy tudd invasion la Vladimir Poutine bëgg a def Vladimir Poutine moom mu ngi naan deful invasion mm-hmm. waaye mu wóor ba leer communauté internationale bi surtout États-Unis ñu ngi naan lu ëpp cent cinquante mille soldats russes ñu ngi nekk ci frontière bi nga xamante ne moo nekk diggante Ukraine ak la nga xamante ne mooy eh, les deux régions séparatistes mu nekk mais aussi euh, ñu ngi ciy tudd Biélorussie te Biélorussie aussi dafa am frontière ak li nga xamante ne moom mooy Ukraine donc mu nekk euh, benn situation bu xaw a jafe bu xaw a métti pour l'Ukraine mais également pour euh, sa population mais ak lu ci mën a doon lu nekk ñu bàyyi ne ce problème la ne laissera pas l'Afrique intacte ne laissera pas l'Asie intact parce que réew mu ci nekk am nga koo xamante ne sa partenaire la moo lay jàppale. Mhm. te sa partenaire boobu bu nekkee si jafe-jafe boo moytuwul jafe-jafe yooyu law ba dal donc li ñuy ñaan mooy conflit boobu gaaw a jeex pour jàmm ñëpp. rawatina waa Ukraine. et justement pour mu jeex docteur ci quelques mots rek lan nga jàpp ne mooy euh, solution bi. bon li ma jàpp mooy solution bi mooy ñu dem ci table des négociation muy États-Unis muy Union européenne Russie euh, ak les facilitateurs naturellement lu mel ni Chine Inde. ñu toog waxtaan waxtaanee problème bi jéem a xool solution boo xamante ne ku ci nekk ci réew yooyu noonu dina ci gis boppam rawatina Ukraine bi nga xamante ne tey lii métti moom moo ko yëg Union européenne yëgul lii métti parce que du doom Union européenne la ñu rey tey ce sont des Ukrainiens ñoom ñooy dee. Mm-hmm. tey du ay Russes ñoo fay dee éventuellement peut-être ñi nga xamante ne Russie la ñu jógee nekk fa bokk ci conflit bi mais aussi il faut que ñu retenir benn mbir dafa nekk euh, benn réew boo xamante ni enjeu la pour li nga xam ne mooy États-Unis enjeu la pour li nga xamante ne moom mooy Chine parce que tey yu bëri xamuñ ko mais la Chine la Chine est timide par rapport ak ce qui se passe li nit yi war a retenir mooy yaa euh, jamono 2014. Mhm. la Chine jënd na luy dem ci 3 millions d' hectares de terre foofu ca Ukraine et 3 millions d' hectares de terre yooyu noonu nag ku ci nekk xam na ne suufu Ukraine suuf bu dund la. lañ ci jublu moom mooy dundal la nga xam ne mooy seen économie léegi nag réew mu mel ni Chine réew moomu tamit du bëgg Ukraine tàkk mhm. kon réew mu mel ni Chine tey war na mën a jouer rôle d'arbitre ànd ceeg yeneen naataangoom lu mel ni Allemagne également li nga xamante ne am na arrangé wu ko parce que ñu ngi wax maanaam Nord Stream bi nga xamante ne gazoduc la boo xam ne dafa war di yóbbu gaz foofu noonu ca Europe. Mhm. ñu ngi wax nag euh, la ñu koy arrêté mais boo leen xoolee ba ci biir eh, Allemagne àndaguñ ci ce qui fait que ne maanaam crise bi ñii gis nañ ci seen bopp ñii gisuñ ci seen bopp kon nag bu mbir mi demee ba mu toll foofu noonu retrouver wu autour de la table des négociations waxtaan ak ña nga xamante ne ñooy les principaux protagonistes fexe Vladimir Poutine naka la ko américain di dégloo. mais fexe Union européenne également naka lay dégloo Vladimir Poutine <laughs> mais bu ñu continuer di regarder en chien de faïence situation bi dina pourrir te bu pourriree kenn du ci mucc Hmm, donc suñu hmm. position par rapport ak euh, question boobu noonu loolu la. d'accord ñu lay jaajëfal bu baax a baax docteur Abdourahmane jàllo ñu ngi lay remercier bu baax a baax madame Elisabeth Diatta di la naan merci ci invitation bi encore une fois di leen remercier yow ak la nga xaman ña nga xamante ne ñoom nga sëqal liggéey bi foofu ci rajo mi FM.